il disait tout le temps la résistance ñu ñuy dëkkaloo fu ne naan ay jihadiste lañu ay salafiste lañu ay terroriste lañu tey jii moi je suis dit je me dis je suis en communion avec les véritables acteurs de la révolution du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay monsieur le président de la République li mu wane New York ba ci démb wane na ni jigéen ja doon jooy ay jéeg doomam mat nañu pour xeexal ko devant le monde entier devant le monde entier il a tenu un discours révolutionnaire ñi ko contre sax dañu mujj wëlbatiku di ko féliciter di ko jaajëfal même ñi d'accordul woon yàlla na continuer di leen wax ni ñu ngi jëm ci période yu metti muy période yoo xam ne électorale la dëgg la maa yaayu Pastef waaye maa yaayu Sénégal ndax dañ ma dénk ministère de la famille et des solidarités moo tax jàmm rek lay ñaan ci réew mi moo tax yàqkat yi yàqkat yi bu ñu leen may benn porox ndoll bu ñu jaar pour yàq sunu réew première chose première chose mooy nii ñu def nii lii nii waratul gajan faaw ñuy daje nag ndax daf ñoo jig lool dañ ko daan def du ñu am sax paas dañ ko daan def muy metti kon tey jii lañ ko war a gën a def nañu ànd booloo nekk benn mooy ñaareel bi élection yii nga la bu ñu ci kenn dégg yàlla bu ñu ci kenn dégg ndax bu ñu déggee mën naa doon kersa ci ñun te bu ñu fàtte ni sunu yaay jooju mi ngi ci néeg bi di seetaan bu ñu fàtte ni sunu yaay jooju daf ñoo soxla daf ñu yónni yàkkamtuñu Ousmane Sonko taal xel yi ubbi xol yi ba ñun ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk ADN muy gëm senegal ñu taxaw pour changer réew mi buñ ko yàq bu ñu ko yàq culture nekk ci liste yi na xam ni fa yàlla. parce que nag loo bëgg bëgg bëgg li war a nekk rek mooy nekk lan mooy nekk amba assemblée nationale lu dul am majorité non mais majorité bi mën nañ ko am te kenn du ci mer suñu amee majorité on permettra au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de continuer son travail mais bu leen fàtte ni Diomaye Sonko moo taxaw ne kii maay moom mooy man kon bu ñu yàq liggéey bi ku ñu dugal ci liste yi baax na bu ñu la dugalul nga xam ni beneen yoon am na ñu wàkkiirlu ci yàlla te xam ni l'essentiel c'est qu'on soit majoritaire pour que ñu mën a yeggali bu ñu fàttee mukk sunu yaay ji ci biir néeg bi loolu mooy ndenkaane li bu ñu fàtte mukk Sénégal kon maa ngi gërëm ñëpp di wax ni tey am naa mbégte moo xam ne mënuma koo wax te sawar naa toog ci jataay bu mel nii parce que daf may fàttali Kër Massar dafa may fàttali Akapes di ma fàttali loo xam ne nag mënuma ko bañ a wax ndax xëy na maa nekk ci kanam mais am na jigéen yoo xam ne dañoo rey seen bopp pour le parti am na jigéen ñoo xam ni tey nekkatuñu ci àdduna bi soxna Marème mbay bokk ci Mariama Sagna qu'on a lâchement tuée à cause de ces femmes nous devons continuer le combat am na ñeneen moo tax ma ni jigéenu Pastef ana ngeen Mujib jaaraama Vous avez cru en lui. Vous avez cru en lui au président Ousmane Sonko te booba kenn gëmu ko ñu naan ñu moytu leen ko joolaa la 2014 samay mbokk yu ma bokkal nee nañ ma kii ngay àndal ndax wóor na joolaa la ñii naan ma xool nga ni muy solo ku ma ko wax ma bàyyi la àdduna ak alaaxira am na ñoo xam ne ba léegi duma wax ak ñoom man Sonko dama ko gëm dama ko gëm parce que dama bëgg Sénégal te xam naa ni loolu moo nekk ci yeen kon gars yi maa ngi leen di gërëm di leen wax ni le 17 novembre personne naa la droit à l'erreur unissons nos forces bureau politique maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn lép ci bureau politique bi laa koy teg Mujib mënul ñàkk ndax dama leen jiite te yaakaar dafa fort mbenn fay newu fi wala xëy na mi ngi fi ñëw na après mais maa ngi koy jaajëfal mooy sama adjointe ci Mujib di wax rek ni jaaraama Ousmane Sonko moo ñu war suba ba ngoon jërëjëf Ousmane jërëjëf jërëjëf Ousmane jërëjëf merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci beaucoup Maïmouna Dièye présidente du mouvement national des femmes de PASTEF ministre de la famille et des solidarités merci beaucoup. Maïmouna merci madame le ministre donc ci bi ñuy tàmbali jox nañ kàddu gi jeunes yi nu avons passé la parole à un représentant de la jeunesse patriotique nous avons donné la parole aussi ñi nga xam ne ñooy doomu daara yi mouvement yi bëri nañ fi ñi fi teew ñëpp nag nañu jël parole ndax bu ñu fàtte ne dañu am un film de cinquante-deux minutes à suivre mais ci sama kàddu organisateur yi ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen sant ñu ngi jaajëfal les membres du gouvernement yi fi nekk ñu ngi jaajëfal aussi député yi parlementaires yi Serigne Cheikh ñu ngi lay sargal bu baax jaajëf si déplacement bi waaye mënuñu bañ a tudd aussi suñu mag ñi muy doyen Alla Kane ak doyen Mody Niang maa ngi leen di ñaan ngeen tàccu leen bu baax doyen merci beaucoup merci de votre présence elle nous touche énormément merci beaucoup bu ñu jógee ci madame le ministre Maïmouna Dièye ñu daal di jàll ci ki nga xam ne mooy coordonnateur PASTEF à Dakar Abbas Fall merci de l'applaudir jërëjëf mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp kenn ku ci ne ci tur ak turam ak santam euh, di rafetlu jotaay bi di ñaan tey bu ñu seetaanee le projet ñëpp xam ne on vient juste de démarrer mais projet bi fi mu war a egg eggagu fa te li tax mu di fa egg mooy li nga xam ni war naa ko délivrer comme message pour man tey c'est un journée de c'est une journée ou bien c'est une soirée de recueillement d'abord bu ñu ko fàtte nous avons été doublement affligés